taala mu may ñu ñu fekkee ay déwéni déwén ko ay déwéni déwén ñu ngi ñaan borom bi subhaanahu wa taala borom bi subhaanahu wa taala mu wërsëgal ñu ñu liñ ci jot a def lépp ci yiw ci jot a ci yiw mu fulal ñu ko te nango ñu ñu ngi ñaan borom bi subhaanahu wa taala ci rëcc yiñ a def ci ci jot a def mu jéggal ñu ko mu jéggal ñu ko moom kat moom mooy buur moom mooy buur mooy jéggalaa bu mag bi mooy jéggalaa bu mag bi yàlla suñu mujjantooyelu koor suñu mujjantooyelu koor yàlla na yàlla tijji buntu wërsëg yëpp yàlla na yàlla wërsëg yëpp teggi jafe-jafe yëpp jafe yëpp defal ñu ak yombal defal ñu ak yombal wërsëgal ñu nag ñu sax ci quran ak sunna wërsëgal ñu li nga xam ne moom mooy mujj gu rafet nga xam ci mbëggalum bàmmeel musal ñu ci mbëggalum safara musal ñu ci musibam dee musal ñu ci deegu ñaaw ñu ngi ñaan borom bi subhaanahu wa taala fii ci heure bii yàlla na wàccee jàmm ci bépp réew jullit surtout waa Palestine bu leen Palestine bu leen ñaan nañ leen ñaanal borom bi subhanahu wa taala subhanahu wa taala alagal ñu ñi nga xam ne ñoo ñi nga xam ne ñoo fi julit julit waaye mu delloo leen seen delloo leen seen jàmm dem dem suñu réew mii ñu nekkit mi ñu nekkit ñi ngi ñaan borom subhanahu wa taala mu wàccee mu wàccee ndax nag bañ ñu ko ba suñu jull bu ñu danga naa allahumma anta allahumma anta wa minka salaam tabaarakta yaa zal jalaali wal ikraam kon ñu bi nga xam ne moom mooy borom jàmm fu mu jàmmal nga am jàmm yal na wàccee jàmm ci Sénégal waaye ñu ngi ñaanal yàlla ñi nga xam ne jiitu ji nañ de yàlla yal na yaatal seen bàmmeel waral leen ci safara jéggal leen ñaanal yàlla képp ku fekk yàlla na yàlla wéral moom nga xam moom mooy saafi ñi nga xam ne caabi da leen féeti ginnaaw yàlla yàlla na leen tàggil ooy teggi leen natt yooyu ñu ñaan borom bi nag mu may ñu ñu ay weer yu bari mu saxal ñu suñu ngëm musal ñu ci lépp luy ngistal sellalal ñu suñuy jëf ak suñuy wax yàlla nañ ko boroom fantala def lépp jeego bu ñu def ci liggéeyu yàlla bi wala kàddu bu ñu yëkkati yàlla na nekk ngir jëmmam ji moom boroom bi subhaanahu wa taala maa ngi baalu ñëpp ak na ma baalu baal di sàkku ci yéen ñaan bu baax ñaan bu baax borom yàlla yàlla ñu bool defal jàmm defal jàmm te yàlla wàccee jàmm ci sëy yi jàmm ci sëy yi wàccee jàmm ci dëkk bi jàmm ci dëkk bi ñu amagul ñaareel yal na ko yàlla may ñaareel yal na leen ko yàlla may ñu amagul borom kër yal na leen ko yàlla may ñi amagul soxna yal na leen ko yàlla wërsëgal kon ñoo ngi tàggatoog yéen ngi tàggatoog yéen lu ci jub lu ci rafet lu ci rafet ci borom bi la ci bi la lu ci am ay njuumte am ay njuumte ngeen jàpp ne man doom jàpp man doom ak te kii waxit te waxit du borom xam-xam borom xam-xam dañuy dimbalanteeg rek teeg yéen rek yal na yàlla def jàmm def jàmm subhaanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa nastaghfiruka wa ilayk ñoo ngi ñaanal Serigne Seye bu baax guddal fanam yokk wéram yokk wërsëgam ba taxaw bii mu taxawee ci kaw yal na ko yàlla fay ay yiw yu bari ci at ci njabootam waaye mu fay ko ko يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أعطى الله بقلب سليم قلنا السلام عليكم ورحمة الله